ginnaaw bi mu nemmi ko marché Ocass bi nga xam ni ba mu fay jógee bàyyi na sapeur pompier yi ñuy xeex ak lenn ci li nga xam ne moo fa des ci ay takk tàkk gouverneur bu Diourbel Gorgui Mbaye ànd na ak délégation bu takku ñu ràññee ci préfet bu département Mbacké sous préfet bu Ndam fekk Serigne Mamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ca Touba Mboul jublu gi mooy leeral ko lakk gu métti gi nga am foofee ci marché Ocass ginnaaw boo xamante ni gouverneur xamle na jafe-jafe yi sapeur pompier yi amoon ngir am fu ñu jaar bu mën a fay lakk gi. ci loolee sàkku na ci sëriñ bi ñu ko booleel ngir ñu gën a mën a saytu marché bi ci fànn yëpp balu lu mel ni bañatee am. dañuy ñëw d'abord pour masawu la parce que lii si sa njaboot la dal. lii bu amee ndogal suñ borom la. waaye nit tam lu ko dal rek day jéem a seet. li tolloog moom li tolloog xelam li tolloog doole mu jëm ko def pour moytandiku ko boobu liggéey nag ginnaaw bañ la masawoo ci lii parce que lii bu ku mu dal sa njaboot metti na ñu ngi ñaan ngay jàppale ñu ci ci liggéey boobu ñu bëgg a def euh, maire dina woote ñun ñëpp dañ koy woote bi Touba lay doon bu ko defee man ma ñëw ak service yi ak sapeur pompier ñun ñëpp ñu jéem a seet nu ñuy def ba organiser waat marché bi ndax biig bi lakk gi amee deux heures du matin la deux heures vingt rek ñaar fukki minutes lañ ci rek sapeur ñëw kon boog sapeur yi tardé wuñu waaye amuñu fu ñu jaare ci ay kàddoom moom sëriñ bi ginnaaw bu mu massawoo kilifa yi ak ñi nga xam ne ñëpp loru nañ ci lakk googu xamle na ni lépp nañu ko delloo ci dogalu yàlla suñu borom mi nga xam ni mooy def di dindi terewul nag mu xamle ne ànd na bu baax ak kilifa yi ci lépp loo xamante ni matuwaay la bu ñuy jël ngir mën a defar marché bi ba mu ni ñu ko bëggee. waaw moom lépp moom lañ ko delloo yàlla rek. dëgg la dogalu yàlla la. dëgg la kon du kenn. billaay kenn du lenn dogal mhm. eh, dogal. dafa dafa xëy na dana bari lool. Mhm. waaye yàlla moo ko fa defoon te du jeexal. dëgg la waaw. mën na faa def lu ko ëpp wan na faa def lu gën. billaay loolu rek la. loolu foofu dong lan ne lan lan nekk. Mhm. ndax noonu dong la demee. lépp moom dañ ko delloo ci yàlla rek. nga xam ne dogal ba moo xam. yàlla mooy mooy dindi. Mm-hmm. damay mooy def mooy def mooy dindi. Mm-hmm. moo xam li muy def moo xam ni muy defee. Mm-hmm. moo xam li ko tax di def. ginnaaw kàddu yooyu nag gouverneur ci teewaayu maire bu Touba di Abdou ak kilifa yi nga xamante ni ñoom lay àndal jàpp na bis ngir ñu daje waxtaan ci xool nan la ñuy liggéeyee barab boobu ba lépp mën a jël matuwaay yi ñu soxlawoo rawatina ci kaaraange ba lu mel ni bañ a tee am.